update. Do I want to play my music? Oh well, after. Hello. naa ngeen def soo musique bi de moo du mun a because lifin bii di wax naan update Nangendef, Nangendef, ça va. su ma léegi te picc bi ne sama bët bi léegi bu wax ñaan la tabal waaye ma koy peinture hello thank you how you guys doing what happened is I want to get ready because I'm leaving but um, I wanted to play some music and for us, for us to have a before I go, but the thing is updating. The music thing look like it's gonna finish soon though, but you know. yéen ñi xamut makeup tey wax naa lu tax may jël lifin bi di ko diw si suma lifin bi. xamuleen leen li may def du ngeen jàng ah yéen a bëri affaire te sibbutu waay ku leen mas a gis kumdo ba leen ni ngeen mel ah man de askan wi jaaxal na ma. si butu taxaay dal ko rek te ku wax dee woy me ko ba dugg na sama biir weex waaye dosum li la waay ma doon jël me ko ba far beneen me ko ba tëjuwut xappati ko dugg suma wey suma wey xokk ko mu dugg ci dosum me ko bi la nattu boppam la de boo ko miinee anyway yoonu kon kenn néew si duut lu bonee noonu at least xam na yu ko gën a xiis yu nit ñi miin but you know ma ne seetluwulee ne fa nit ñi xane fa ñi dikk tikk toog ne man la ñuy gaaru xaale man dooyaan naan man de du ma waxi nit suma suma suma topic yi waxi du ciy bokk man naa wax ne waaye duma waxi nit suma mbiri bopp laay wax di jaay baax takkat seen jikkoy xaj ju caga ji ri caga bu lamb nit màggatam lamb man Ami Jóob bu ma junni sax duma def ci askan wi di ko posté te gannaaw bu ñu waxee loolu ba pare nag fa ñuy ñëw di di wax waxi nit ñi di jëw nit ñi jëw yoo xam ne ci digg vidéo bi ko waxee woon <laughs> am lay turki digg vidéo ma de góor ñi sonnal nañ ma daal ba leen ma ngir yàlla solu rasulullaay soo yee baax si li ma doon wax fa xam ñi de ñëw di ma gaaraxaale de mhm. man de suma vidéo duma ci a nit bu ma indil waxi nit ñu ne man mi de wax kooreen affaire maa de waxi nit maa bon bu ma indil waxi nit te kat ñu nga cagata rancang tey def yëfi xaj ba mel ni ku doom seen yoon néew si di xajeet xajeet xajeet xajeet xaje ci internet bi le bañ di leen waaj a jaale ñu ne mën la ñu gaaru xaale waaye gannaaw bu ñu waxee loolu pare si la leen yàlla di weer nag si digg vidéo bi ñuy waxee lool fa la ñuy commencé di wax nit ñi wax di wax waxi nit ñi waxi nit ñi la ñuy commencé nag ah di ko wax mel ni ku dof fàtte li ñu waxoon jos naaw am laay what the hell ma fa ne nga ne doo wax waxi nit ñi very good fa ñuy jaay waane dañu ne man maay ko bon kii dëkk kii wax current affaire yi ak wax suma xalaat ci current affaire ak comédie yi wax askan wi ku ma war a wax dëgg ko ne yi hmm. waane wax waxi nit man boo ma waxee nit ku baax laa te ñu nga xajee xajee xajee ci internet bi le ba man ku ma fayoon millions yi pound sax duma def seen jikko xajjile di ko puus ci askan wi ci gune yi le moos ñu ne man la ñuy wax loo di ma gaaru xaale waaye gannaaw buñ ko waxee sala leen suma xaqi dal ñu direeku di wax waxi nit ñi le ci digg vidéo bi nag digg vidéo bi ñu waxee woon ne duñu wax waxi nit sa <laughs> tàmbali ñoom nii ñii nii bañ defee nii naa ñu bont ñi ñu niiti naa ma ne very good ah xaq very good ma waddaal ma foog nga ne yow nit ñu direeku ca waxi nit ñële di wax di buli di ñaawlaate di wax di buli di ñaawlaate ba seen xol sedd ma ah mu ngoog <laughs> loolu ma koy gis ci tiktok bi de gars yéen du ngeen di gis la ma jàpp sama bopp di seetaan seeni waram dégg nga ne maa ñàkk jom waaye ma jógee liggéey guddi nelawuma lu dul ñaari waxtu genn wàll te may liggéeyaat guddi waaye fa am beneen liggéey bu muy lijjanti ji ndax mu mën a sànni liggéey buñ jaale bi le ba maag liggéey bii de léegi ma sànni ko ku fi diree ko nag naan ma am mi doo yàgg si liggéey <clears throat> yéen toog leen seen liggéey yu bon yi mel ni ko da tooguma ci liggéey bu bon liggéey bu bon bu ma xam jàll ca ba ca de yéen lu ciy seen yoon du ngeen ni man maa ko waane kenn ko waane ki te bon misik ba de dina ngoopile na woy mu ñëw ngoo <clears throat> du maa yéen luy seen tax ngeen ñëw <laughs> foog ne nga ngeen ngeen xool ma ne ah waaye kii de dafa look cute de ah dafa look nice de ak téeméeri yoon yu sëy yëpp dafa mel ni ni dof ki ñuy wax ne moo ne ci moom ñëw si moom xaaral ma dem dal di ñëw bu ma leen jël yéen ñi ci bëri nobu ma leen manu leen maa xamee nobu ma leen manu leen maa xamee ngi seen jëfi nag ni ngeen ma koole tër ak ni ngeen di waxee ak man xam naa ne manu leen maa xamee jos ba leen ma duhuma dof su ma ennemi ya may xooyee dof xaajuma xaaja waaja dof ñi may xooyee yëpp maa leen gën a wér <clears throat> perruque bi jërëjëf maa leen di jaay de bu leen faale xay yi may xas ngeen ñëw foog ne ma leen di jël just like that du leen jël so don't worry it's not like ngeen a bon o ñaaw wala wala nangam ba just du leen jël you know just ida nobu ma leen wala mën leen a wax ak man ba tax ma gëm ne ku baax ngeen you know so toogi leen nële Mhm. jonko ne leen na le di ma yundu tamay ma jàmm tout yéen ñëpp surtout yéen ñi may karrakaree ni le kool ni ko yut nga koolaa koolaa koolaa koolaat junni yoon koolaa koolaa koolaa koolaa koolaa all that <laughs> ni ka su la buggee dana la xëyu you don't have to all this call call call call ah come Mm. dimbale ma xaw ma li film fi ne lu lu jël ko seetal ma ko. ah doxu te maa bëgg a misi. ah di jël ko seet ko. xoolal na fay fay commencé di on foog naa de waaw bàyyi ko on foog naa on agul. fay update bu fi ràng di xuural ba naan ma ay doon noonu nangam te te yaa ngi xam sa game bi ngaa reeb. waaw nga def ba xam sa game bi xamal noo may dimbalee ah sa yaay laa da nga xaal ko de. sa yaay laa su ma soxlaa ndimbal si yow doo ko def naan ma nangam depuis léegi jógal yëti ma ndox ma naan danaa cancel li ma la jotee woon nga reeb hmm. danaa la sel delloo la ci sumu biir bi gannaaw meerob tiktok meerob meerob sëriñ bi fen tiktok mu ne dëmm hmm? mu ne man dëmm la aadi ah. faa merab sëriñ buy fen tiktok mu ne man dëmm laa ah, dëmm mooy xam nga nuñ koy waxee nit ñi nit nit kuy lekk nit oh. mm-hmm. loolu la wax sa yaay de maire baa nga Sénégal su may dem yóbbu xale la nga dóor ko ah, mu ne du dóor màggat aadi doo dóor maire bay xooyee sa yaay dëmm aadi yaa ñàkk fayda mu ne mu ne fa màggat fa koy baxal billahi aadi yaa ñàkk fayda te ñàkk njëriñ maire bu bon booba nga di baxal man danaa ko dóoroo sama bopp danaa ko dóor nga ñàkk fayda muy yooye sa yaay dëmm di di ngir bëgg ak nit ña kool ko nga naan la hmm. xam nga lu ma jotee ak ma ñëw lonk ko ñu jaale ko sax maire baa ngi fii ba ma moom rek may lonkee sama bopp sax laa ba ñu suuli suuleeti maire bi la tey anam maire xaj bi la aadi xam nga lu ma jotee ak bi la hmm. maire bi xam nga lu ma jotee ak moom maire bi fa doon def vidéo fa doon def vidéo di di tam beneen maire dëmb di xooxee beneen maire dëmb just pour ni ñi kool ko mu ne daf dee defar garab you know comme comme voodoo voodoo people yi hmm. maire bi loolu la léegi ba muy defar garab voodoo voodoo voodoo people yi la maire bi la ku ko gis ni néew jaww ni ni jeeg bu confis léegi maire ba fay defar ay garab mu ne defaral ni ñi garab yi noo di fen xam nga sëriñ ni léegi ma ñëw ne ko maire bi de yéen a koy xooyee dëmm yow yaa ngi koy xooyee dëmm jox bi cause bugg bëgg nit kool la pour nga defaral leen gàllaay hmm. rek maire ba ne man soo gisee may wax loolu may dimbale meer bi mi xooyee dëmm dëmm kon nag man ma koy dimbale kon nag man dëmm laa moo tax may dimbale maire ba ndax loolu jaadu na maire bi di ma woowee dëmb jos bi ko fa bugg nit ñu kool ko defaral mu defaral leen féeg garaba garabi xajam yi mooy maire bi ne soññ ni fas wu si butu <laughs> tey rek la ñuy jaale maire bi guys maire bi fii génn balu ma balu ma xàq tey ci askan wi bu bu yàlla sàkk ma lonk ko comédie ci moom bañ jaale ko xaj bi maire bii do I don't care maire bii mëna lu ma dara yàlla du ko nangu lu ma bugg a def ak lu mu xalaat pour def ma ko si yuuram gi lay dëpp ndax maire bi man su ma du woon dëmb nañ ko bu yàgg tam def ma dëmm moo man naqari li ma duwul dëmm ba man koo lekk moom fay fen I don't care mère bi fay fen xaw mère bii danaa ko wuti Sénégal ba gis ko film ko dóor ko fay fen ah ko rek <laughs> mu mel ni si buti waa danañ ko jaale saa mu defati vidéo seetaan nit ñi ma record ko <laughs> ku duggati ca vidéo ba ma record sa wax ji yëpp post ko suma YouTube ba comedy nit ñi di dégg lim la barki salaat faat ya taxaw leen ba ba leen ma ak maire askan wi yëpp ba leen ma ak bii rek te du maire bi man dëmm laa man Ami Diop dana xandas ma duxoon dëmm moom jaale wuñ ko bu yàgg dana ma def dëmm bàyyi foos maire bi nag fu mu jaar ma mu def ma dëmm ndax ma man koo lekk moom ak sëriñ yi fenkati sëriñ yi mel ni moom yépp ma lekk leen askan wi am jàmm waaw fu mu jaar maire bii def ma dëmm xalaatal man métti du ma dund ci askan wi su ma duxoon dëmm moos lekk naa xay yi yëpp bi lu mu wax mu ma lu tax man mu def ma dëmm te man mënumaa lekk nit mu ma naqadi sa youtube <laughs> sama youtube link baa ngi si kaw barki salaatu faatee maire bii fay fen lu mu nit fay fen lu muy waajo nit fay fen xeesalam bi ni caga bu confuse jos maire bi fay fen ba yi ni fas bu sibutu fay fen I don't care nothing duma dal kenn yàlla duma mere maire bi moo tam dëmm ci digg askan wi yëpp ma tam bon jox jox bugg nit ñi kool ko mu naan su ma bi 77 nanga ami xolof sax dëmm la moo tax muy farle maire maire bële dëmm la ami xolof mi koy farle dëmm la xool leen loolu rek guys ku ma wax ni ma naa ba maire bi na xalaat li ma maire bi da feeg dikkul balu ma xàq ci digg askan wi saa wu ko suma xel dajee ma lonk ko comédie ci moom ba jant so du fa xajata bonta bugg lu yomb rek tax muy def nit ñi loolu anyway ana suma wëyu loof ba sax ma ñëw pilee sama bi sama wëyu loof fa am ma nopp taay yi ko xam ne génn leen ci seen yoon néew si te ñëw bugg yëpp nañ dem toogi fële raw naa leen ana wëyu kii wa sax rëcc na wëyu rëcc na ma dee waroon naa koo gi rëcc naa rëcc ma ñëw musique bu neex pilee ko sama bi bile fecc bala maa dem wala ma ñëw génnee mérab dëmm bile ndax du xànd ak sama wëy wi sax fay fent dëmb la moom ci boppam moo tax mu xam dëmm bay tàmmeer bale dëmm ngir di joxe numéro ay 77 cot xaw ndaw meer bu ñeme yàlla te bugg lu yomb tam mën a fen te yab yàlla xam nga buy seetal nit ñi ni muy def mu ne moom ko xamul photo bu rafet du la jël ko xamul photo drianke du la jël seetal la a leen ji koy xaj jooj rek mooy ne borom xaalis yi lay tagee di leen seetal business bu mag lay la la la di def criminal bu bon bi mu doon xale bi ma la gisoo xaaral ma delloo ma na taal ba sax fili xal suma bi bi woy te baagu meeram xaj ba beneen yoon yes, yes, yes. bëgg na bëgg na loxo yu weex yi la fa mel ni sangu ma sangu naa gaay barki yàlla su ma diwee suma yaram ba koy naas suma la gisu bibi yaa ma muy eh, ana suma loxo yi ni weexee mu ana suma diw te xawar ma fekk ci ba pare gaay Merab demu bile ba xam sax taxawal ma fecc ba pare ah, ah, ah, jaara xale su ma loxo yi ni mu weexee mel ni diw ka nan nan na nan nan na yee yee yow bi

ma ñëw dem wallahi dem sama interview maa war a dem interview gaaw ñëw nelawaat su dee dinaa nelawaat soog a liggéey waaye foog ma ma nelawaat Viviane yëg-yëg bi rek maa ngi koy yëg taay yi suma xol bi comme lem ak sukur. xawle ma gaa xeggal sama ko bi gaaw dem. kawar yi fa am ko bëgg leen mën a jàll. danga toog sama xol may ki ko moom lay ak jëbu mi la bu ñàkk kawar bi <laughs> këpp <laughs> li ci day yëpp di melax non. <laughs> doom. ci ne. ak eh. a neex baal macha allah te mën a wéy mi yaa rek. ndax wéy wu neex. gaaw ba mu noo wéyali yi ngeen di fay taw tey rek laay def. jërë ngeen jëf thank you bi bi xaaral ma ñëw kuleel la beneen wuyu loof bu neex sax ni ñu xañaan ñu bon ñi le taxaw leen ba ma xam jëkkër ju baax rek ñaanal leen ma da ngeen nekk du ami joo man rek si sëy bon ñi ngeen toog di jaay ma ne sëy du ma toog si loolu waaye xamee góor bu baax la ilaha illallah góor gu ma bëgg na saas danaa ko jaamu jaamu yoo man rek si jaamu nit si jaamu góor

ਕਦੇ ਹਟੀ Girl, no really. Look at <laughs> Thank you. Look at this. Ridiculous. Really. moo yi <laughs> ñoo koy yëg fay si butu seetaan leen nit ñi may xam leen a man ma tërki askan wi gaa foofu na weeli dootoo ko thank you Khady send free chocolate secretly to someone special look out for posters where you live ñu laa demee suma interview bi suma job interview bi <laughs> hello good afternoon I'm Amy Jobe it's me I got an appointment here for an interview oh is that you Amy nice to meet you have a seat did you see the lady that just arrived <laughs> did you see the lady that came in for interview did you see her eyes she got one eyelash on I think she forgot the other one guys she looks so funny I nearly laughed but <laughs> really where is she she's sitting over there waiting for the manager that black lady, she only have one eyelash on. the women are gonna be like what the hell because it's a restaurant. Imagine if I go there like this guy. Oh my god. I'm going like this. <laughs> oh my god. wéy nga ne dama ko plier saa woo pile wéyu bi rek wéyu ex ba ñëw dendeeg moom naqadi baaxee dal ko di yuuxu hmm, wooy dee naa dimbali leen ma wooy wooy rey naa sama boppe góor gu bon ba bu jigéen ju baax ju xam ñàkk ko fu wétu anyway bébé may naa la wooyu neex bi bu ma def ni góor kii di mel si bébé bu ma def ni wooyu ma pile wooyu ma doon pile exam ni góor góor gi mooy the best love song singer melal ni góor gi bébé kenn déglu muy woy surrender found out the truth when I met you now my heart is yours forever You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you, I'll be lonely. Without you, I'll be lost. I need you by my side. for the rest of my life. Look at that, guys. Without you, oh, I'll be lonely. Without you, I'll be weak. I need your love till death do us part. Can this be real? I find the wonder my heart have been yearning for. Someone pinch me. Is this just a dream? Oh, thank It is a reality. You're the one, the one, the yaa moom wuy bi dégg nga people that calling me stuff, baby. <laughs> they, they crazy. if you're watching the comments, baby, don't mind them. They just, they hate me si bëri xam ngeen lu tax ngeen bañ ma because man dama relax wàccee suma bopp mun a kafre wàccee suma bopp si zéro xam ne nit rek laa waaye di same time ma gëm suma bopp moo tax ngeen jealous parce que yéen ngeen a rëy te féeg rëy ngeen féeg ngeen gëmm di ngeen seen bopp hip hop ngeen xam ngeen ay groupe yoo xam ne yéen ak ñoom di jëw nit ñi. di jëw nit ñi surtout yéen ñi nga yéen ñi du def vidéo ci askan bi yéen yàq askan bi yéen ñu bëri. yéen di tax nit ñi def vidéo yu bon yi sax di ko def ngeen di ko like di ko séddoo pare di di jëw ñooñu di leen xooxee bon te fekk yéen koy like di ko séddoo yéen yàq askan bi you know but anyway taluma leen may play suma love song ana beneen bi so Brian Nora kii mooy one of my that song is so loud and I sorry guys I replayed that song by mistake so guys this guy is one of my favorite love song singer he's called Brian Nora and American Ghanaian his parents are Ghanaian <coughs> but he's from America he have some of the best love songs that I love so much. So guys, I'm gonna look for one of his song that I love as well. Mm. at least ma demee liggéey tey ba wàcc du liggéey hard fii ba su ma xamee liggéey bi damay bëgg anyway ba. du ma delluwaat liggéey bii nii fii ba um, altine suba bi déglu bi bi tam Brian Noro moo ko wéy déglu bi I still love me? What if my body ache? I always make you late. What if I couldn't wait? Would you still love me? Would you love me when it's hard and our lives falling apart? If the things are being shown, I'll go. I give up life. I can't do makeup at all, guys. What the? I'm done with life. Look at this, guys. What if I'm complicated? Or really mean you frustrated? It's getting worse and worse and worse. Never went quite right. Wish I could let you know. <laughs> Thank you, Allah. He's wonderful. I'm done with this. Oh my god, this is how I'm gonna go, guys. I'm done. Baby, are you hearing this song? You have to listen to it. Because this is me asking you these things that they're singing. Would you love me when it's hard? Our life falling apart. So we once knew are long gone. Blue sky turned gray. My memory fades away. Would you? Yeah, this song is so good, Fatu, Fatu Body. Guys, I'm done with this. Whenever I'm doing my eyebrow, it's like a war because I want them natural. I don't want them too obvious and fake, you know. But it's so hard sometimes. I don't want them so perfect and fake, but I want them to look like mine, but you know, just like there's some hair there. <gasps> <gasps> oh my god i'm getting worse guys this one is quite okay oh my god guys mm-hmm. Our life falling getting that, guys. I'm by the window. It's not the same, but I'm going to go like that, guys. Can't be bothered. What do you think? I think this one is still a little darker than the other one. It's like this one is fading away, but this one... Oh, my God. Yes, I'll still love you, baby. <laughs> no matter what.

anyway ma déglu ko rek pour comédie anyway way <laughs> wi non ni la góor gu bon di def de boo jeexalee mu mucc laa ci war a di yërëmtalu nag ni jinne ju sibut ay sata wala yaa naa ni ñàkkuma <laughs> ndax yaa ma jural ay góor gu baax du la tàgg ba nga jeexal ak moom góor gu bon soore ah! tu fiya tey la ko xam bu ma fi toogoon di ci ba suba jeex. wuyu saw bu koy déglu mbéj borom rek laay bëgg. subhanallah ñaan yooyu yëpp boo ko doon def sëy bi dana tas li ngay waj waji nii boo ko doon def yaa waane te naa féq na. jaket bi ni tubaab bu si butu ci dëkk dëkk tubaab yi ci àllam tubaab yi dem di woy di yërëmtal yaa koy yëg bu ma daal fay fen gi góor ñi mel ni moom ci askan wi moo bëri eh, tey nga xam ne sa nawle wéy wi fa sedd xoli bay xaw yaa mën a di wéy te ñàkk xorom te bon wala ka saara xay si wéy dara nag baat ba mel ni ku màndi wéy ndaa illa jabar jaa daa neexal wéy yi te jabar na ko kii kay say wéy xaw wéye mi comme comédien bu si rek bon ñi te dañu ngeen def seen bopp nit. wewu raglo yee illaha illallah góor gi mën a fen te naa fekk te bon fay fen gars yi li muy yëram te lu yëpp fay fen góor gu bon goo xam ne su la jigéen buggee nga séedi ndey mel ni ku dof sàgganee jigéen ja ba jigéen ja dem nga ci peeluy jooy jooylu ak a wër di wax xarit yëpp naan man de bugg you guys entertainment comedy ak ñu jàngee ci sama vidéo yëpp loolu jàngal nit ñi ak comedy baat waaye sama couleur yi moo ko dàq loolu moom xam naa moo tax lu si bëri damay def foundation not your color. It is not, maybe. No I tried, I just because my skin color is beautiful, masala. Car. That's why. So anything I try is hard to have my color. But yeah, maybe I should go back to the shops again and find find out what color. What color do you guys suggest? You know, what do you guys think? Or if you could send free chocolate I mean, what in brand? secret to someone special. Maybe that friend who always makes. I always replay the song by mistake when I'm trying to get it up. Baby, but then lost song, you know. ha tey rek laay dee xaaral ma ñëw play way te yëgu ne sama bébé bi Gambien la <laughs> maa bon man rek miin mbiri Sénégal maa miin mbiri Sénégal at yii yëpp ba mel ni duuma duuma Gambien xam ngeen ne moom ma gisee ne Gambien la Sénégalais la <laughs> bu ma gisee sama vidéo yi la ngir li ak jos ak suma xol xool yaa ci ne after bi naa play way Gambien dégg nga I promise yaa may daane bëggoon naa xam lan ngay xalaat ci man bëggoon nekk ki niroo naa ak man nag de bo it's like moom ma gën a ñuul or something yee du suma kola it's like yee gis nga nu mu yàqee suma couleur bi yëpp exactly yàq na suma couleur bi yëpp kay yàqee sama couleur bi guys Viviamo muy bien, Mathieu laay hut di moom laay si di togg bàyyi liggéey may def nii ñaata la ko mën a audio yi baaxul dinaa ko defal vidéo taluma xaaral ba weekend fekk liggéey bi dinaa si def ko vidéo cos di la woy bébé dégg nga woy wi I love you bébé duma taay di la woy yaa ci new yow rek doy nga ma yow la powder is what I'm applying. okay so now i'm gonna do um say reta be we we de hade de nga we lay nga This is not even dark enough or something. Get Western Union's best ever cash I really need to go and get some good makeup and spend money on makeup. I never really spend good money on makeup because I have a good skin and I just don't like too much makeup. And I don't like wasting money. That's the reality. I always just buy whatever, can't be bothered. But <laughs> I normally just buy like cheap stuff. You know, I don't buy like Primark eyeshadow, I mean, or um, Primark foundation and stuff, but I think I have it, but I never use it. I normally use it inside my work, you know, if I need to. <clears throat> but my stuffs are like body shop or something. Or just super drug stuff, you know. Just can't be bothered, guys. But I think I should buy like expensive stuff, you know, when I have money. What do you guys think? To make my makeup look more flawless. <clears throat> it's just because I have, um, yeah, I used to go to MAC years ago and I used to buy like um, their lipstick Their They have this new brown lipstick. Oh my god, I want it. Um, I just never really spend money on makeup because the fact that I have a good skin, I just never really bother, guys. That's the reality. And I don't like wasting money. But I shall go. So let me see Gambian song Attack. Where is Attack? Digga bi comme elastic. Hey, eh, baby, suma digga li elastic de. waaye dinaa taraay yaa ko war a def élastique nag subhanallah ndiggal élastique hmm? ah xanaa nga laaj faatu ndax because yow kenn doo mun a dem you know nga laaj but remember di ma la recycling stuff nga leen war a yóbbu remember li ma la wax mhm. laajal faatu ah ok kon aadi yow yaa war a def dara demal wax ak faatu daal boo da war a gaaw kon because man dama yóbbu xale lifin bi kaat bi ok Gambian song xaaral play woy wi woy wi woy woy Wally Seck bi tam neex na de moo jigéen janq Gambian bi su ma paree sax play ndiggali bi ko li ma koy fecc ma koy jóg feccal suma nijaay waaye suma ndiggali du élastique de man xaw ma anam sekk ko suma néeg man laaluma ko seet ko suma ne I don't think ne mu ngi si baag bi. oui oui ak a sexy te neex. If you want love, I'll give you. Anytime you want me to. Cause I need you today. I need you tomorrow. I need you forever. Bibi dinga wiwi akan there. La today, bugana la tomorrow. Mu ngi lëndëm. Te moo jot ñetti waxtu mooy jot si mu ngi lëndëm. Bu bàyyi. Tiyel bu bàyyi. Bibi Bu ma sori tiyel bu bàyyi. Tiyel bu bàyyi. One of the best sexy romantic Gambian song you will love ever mooy woy wi déglu leen woy wi nag xam nga yéen woy du ngeen koy déglu seen biir yoon no no no no let me tell you something babe Çekesin ma bu ma suri Diğer bu bayi Diğer bu bayi Baby love you for life Çekesin ma bu ma suri Diğer bu bayi Diğer bu bayi Love you for life Wawa, I am in love. oh, <laughs> I am in love. ba kenn wax ne Ami Diop yaa waxoon ne bu ko góori Gambie seen yoon newu si maa meroon rek ah waane ngeen te sibbutu jege ma jege si ma bu ma sori jiyal bu bàyyi oh, I don't know. chegesima kumasoli am na góori gambien yu baax yu ma gis ñu nopp seen jabar yi te def seen bopp nit mu ko amoon toog kay yooyu taxuñ may wax kon nag toog leen seen yoon néew si bañ sa góor yi dëkk gu baax goo bugg jigéen du nekk def boppam caga fay toog di la ko toppatoo ku bañ loo <coughs> what the hell at bi leen aadi de bankaat bi leen léegi naa ko seet laaj ko fu mu ko dee really jox nga ma kon de xaaf nga naa def nga ko si ah mu ngi nii ko mu seet ko aadi delloo ma baag bi te bankaat baa ngi nii si ko ne rek mu tëb ci péelu rek ñëw ne la nangam xaaral faatu wi sax suma doom ji woyam wi woyu faatu wi laay play yow yëgoo ne faatu faa am woyu dégg mu ne ah aadi woyu faatu waa ngi nii déglu ko rek woyu wi faatu lañ ko woyal yow yëgoo ko Oh yeah, I thought you meant like she was the one singing. Did it? Fatu lên cười á. Fatu na dégg bi neex na Fatou yëpp may naa leen ko including suma doom ji suma mag maam Fatou ñëw si jalalalo si batung pei pei batung batung ema siye batuyo si jalalalo batuyo si jalalalo batuyo si jalalalo batung pei pei batung batung yaaru yaaru aaru bu mu di dem do di waaru mooy fàttu boo doxee ma gestu ma ne ko waxtu boo ayee sa tur nga daal di ma tontu yow yaa ma neex wala yow yaa ma saf saa yu ma mu di nga toog sama wet ci ma ayoo nee ne salaamaaleykum bi dafa dee nga mel ni du yow sa kanam gi la di jël risip ko yëpp risip ko waaw defuma tuumuj mi comme nag ba mu wéccee ko trop si jaanaa naanu fay fay Fatou Fatou yee Fatou yow si jalala nu yee Fatou yow mosuma déglu sama bébé sama bébé sama koolu noonu laay def toog di waxtu maa gën a nobaate góor gi way faatu nii eh faatu yow جعلنا pare almost guys maa ngi ñëw dem lu time de three o'clock ok dama war a ñëw gaaw dem hopefully gaaw ñëwaat noppaliku bala may dem liggéey dama war liggéey xaat nine o'clock si guddi guys yi ngeen bi mooy ñaari fan ñaari guddi ak benn bés te ñaari waxtoo genn waa rek laa nelaw ñaari guddi ak benn bés yëpp ana ndigg la sax ah ndigg li comme élastique ndiggali déedéet taxawa taxawa ma xeggale sama make bi te ñëw bala maa pilee ndiggali bee bi taxawa taxawa taxawa taxawa taxawa ma pilee queen bi su ma paree ma ko bëgg a fecc wala maa def ok xaaral ma xeggale sama make bi queen bi takk ma queen bi takk ma nga ko yow laa ko wóyee takk ma bi ku yoonam néew si

suñ ko bébé waaye li ma doon ma toog di xaar ñaan naa la saraxul la bébé waaye gis naa ni parego sax bébé ñaan naa la saraxul la bébé it's a dafa lënd fa mooy problème bi jant bi fa dugg law ba fa bébé dégg nga wuyoo damay lay sa yaay soo amoon li la gën a damay tuddee si baa ngoor loolu du fi amee damay dem sama yoon nekkuma june di gën a lëndam rek léegi tey du ngeen ma gisati boo damay dem gaas te lépp lu ñu mës a sekk bébé ma pare na gaay xam nga li la war ci part de leçon à te donner comme xamoo li nga bëgg dem seeti ku ma bëgg mu takk ma ci fulla <laughs> yéen suma followers yi day toppandoo suma simple makeup bi sama clé jël sama kawaj xaaral ma ñëw becc lii wala maa becc digg li bébé dee nga woyu xaaral ma ñëw beccal la ko wala maa dem ñaan naa la saraaxu laa bébé nit ñu xañaan ñi na ñu ngi foog ne may caaxaan wala jos nangam you know maa bëgg a sëyal la seen yoon new si xañaante bonte dundu midi te bon xañaante bébé xañaante dundu midi te sibutu you know ana wuyu digg la sax taxawoon na ma ñëw play xanaa ma seen ko suma bébé kay secret chocolate. seen ko suma bébé. bëgg a xam jëkkër ju baax di ko rusa bala ngay sagu yaa koy yëg ku bëggul jëkkër ndax foo toll nit ñaa lay yéeg ni xaj buñ jaale yaa koy yëg waaw yaa koy yëg yëpp rek borom a koy yëg waaye man du ma tere rek may def tam xam bi sa woy waa góor <laughs> def na ma dugg jëg ci romantique rek a tëj rek a tëj dugg jëg ci romantique wax na neex na ma digg bi kaw élastique su ma digg li ko élastique jël mooy pare rek a tëj rek a tëj rek a tëj waleen dama si no oh ma sexy romantique acting again like the sexy romantic. No, baby, the what's the best song for you? Baby, your song is the best for you, baby. Oh yo, it's a Malayano. I know you know. Esse ojo se lá, esse somos. Ai! Don't worry, baby. I'll do everything. Gonna baby. kilifa cat bi ni ñu koy defee sax ñu ngi yëngalee ndekki sax laa xamul ay kastaar xool leen war nga war rek laay leele laa dig na nga laay rek a teg rek a teg rek a teg ya ye olunte mansi oh ma sexy romantic ma wax ma noo ko bëggee one of the best Gambian song ever sexy romantic rëkkatëj ok maa ngi dem guys. bye bye. maa ngi dem guys. seen nu ngi like. sexy romantic. des oh ba sexy romantique Mansi you know oh oui oui oui oui yaa moom right maa ngi dem guys ba si kanam guys ma dem suma interview bi wis leen ma good luck incha allah naa leen wax ma mujjee <clears throat> ok guys leen ma liggéey boobu moo gën a sori bi obviously bii ngay génn rek dugg ba dama ko bëgg a bàyyi you know so nekkul just lu mu nekk guddi yi but liggéey bi dafa ànd ak draining your emotions because dama dee yërëm nit bu ma gis nii may wax sama vidéo yi may ne xaw ma yërmaane ak ma xam yërmaane nag mhm. war naa xawee ci sama yeneen vidéo yi sax bot anyway sama bébé sax mu may xaaye ngeen am saas sama bébé mooy problème fa nekk di ma xaaye yi no mooy problème foofu ngeen xamee sax waaye su fekkoon ne ku bon la ba wëcc ma ba ma continuer ak yéen def leen li ne xaj yi def anyway guys so um <laughs> moo tax you know so dama war nekk di bàyyi xel léegi you know because of moom waaye nag kon but guys you know yeah xaale ma dem rek mm-hmm. xaale ma dem because liggéey bi ma ko bëgg bàyyi dafa mbokk jël si leen ñu dem ak moto bi you know gis seen mbokk yi gis seen sët yi ñëwaat mm-hmm. yéen ñi sax seen këri bopp lañ day dem because yéen yi dañ xam seen këri bopp meer yu xam xaalis yi wala paa yi you know ndeysaan mu ñëw rek ne mu ko fee ñëwaat di jooy yóbbu ma woy bu leen ma indiwaat fii woy ubbi ma bunt bi suma kër galaay laay dem suma kalpe maa ko fàtte foofu ak xaalis su ma kër suma néeg fii duur suma kër fii fum do woy bu leen ma indiwaat fii suma yaram wi yëpp dee ndeysaan he àdduna ndeysaan nañ leen ñaan ñu màggat si fan wu dee wéegi yaram liggéey bi ku koy def te yaroo si àddina doo nit bu ma ko commencé ba tey ci ndaw yi muy jënd jënd noonu loolu after day nekk xaalis bu bëri plus maa ngi koy fayal benn game six pound a month he's not even allowed device ah di nekku di allowed device sax because of this te mu ngi nii di use device yi ma ñëw nangu ko sax fàtte woon naa ne allowed device so um, moo tax bankaat bi bu ma fa dee def bu fa nekk rek ma transfert ko si beneen banque bi you know <laughs> it's complicated so léegi Fatou su demee yóbbu carte bi te fàtte naa ko defal xaalis dafay dem ba pare du mën a fay mu kool <coughs> so guys may dem because liggéey bi ma ko bëgg a ba gars yi dañ daw yaram nekkul jox liggéey bi dafa tiliman staff boot gars yi dañ daw yaram te yeneen ñi dañ réussir because ñu ngi mer nag te xam nga palaat bi bu fa nekkee ngay mel ni ku nekk prison doo génnaat te gars yi duñ la topp si yenn yi because dañuy wax ne mag nga plus yaa ngi feebar xam nga ne duñ la topp soo loolu tax gars yi nag seen réussite bi dañ koy wone because xam nañ ne kenn du leen de dara hmm. di la xooxee néeg ak lu nañu di la ko def hmm. ñeneen ñoo dañ lay tëfli sax naan la bu ma laa fekk yaa ngi koy dimbale di ko mu génn tànk nga di ko fomp and stuff you know mu naan la néega ah oh, non loolu jaru ko buñ la doon fay ay junni sax naan la néega moos nga continuer di liggéey waaye si démocratie bu nekk di soo so Angleterre nekku ne ngay wooyee nit néega te te te te borom du doo def dara non waaye because ñoom fañ wax ne fañ màggat te fañ am feebari xel te fekk ñoo ko tey de bari xel boo xam ne borom xàmmee na nit ku ñuul ba di ko xooxee jaam moo ko tay bot loo ci man jos noo waaye nag xam na si ñoom ñu baax nag ndeysaan te bugguma ni ma leen di dimbalee saa mu ñëwee ba si kanam insha allah ñaanal leen rek ma dem suma liggéey bi su ma ko liggéey waañ la you know liggéey chef la te dañ la dee train xam naa tuuti expérience si chef waaye du ma chef waaye liggéey naa restaurant bi foofu si different restaurant fast food restaurant and normal Italian restaurant so xam naa little experience of kitchen so um, so waaye gars dañ la dee train soo loolu baax na bu dañ la day train ba nga ba nga nekk chef ba nga xam ñu noonu lekk seen meño bi yëpp xam seen yëpp that's good so foofu laay dem nii noonu so incha allah why you worried who tell you I'm worried who me worried about what it's just my daughter was calling me about stuff it's not like worry worry all guys I will have to go now okay maa ngi dem ba xam yi fii ñoo xam ne nit ñi dugg di génn rek ay tubaab moo tax ñemewuma mobile di maa bëgg a toxu tubaab yuy jaay seen lifin yooyu soo nit ñi dañuy dugg di génn rek jonk yi criminal yi dugg di génn rek yenn yi fa ñu ñëw ba suma néeg fëgg ko jaawale kook néeg boobu bi ko suñ néeg yee man maa ne ci kaw ñoom ñu ne si suuf te xóorut moo gën a tax ma bugg a bàyyi liggéey guddi bi sax soo fi bàyyi xale ñu kenn ñuy ne la xóorut waaw jonk yi dugg di génn fii ci bés xëpp na téeméeri nit this is ridiculous su ma néeg sa fay xeeñ kaay xutt bu ko gars di def building bi yëpp ngay fone su ma néeg lañ koy defee tubaab yi rek si jaaytaay ak drogue ñoo ko dàq nit ko ñu ko koy def lu may muslu si àddina mooy suma doom yu mag dugg si loolu di ko jaay suma doom ji ko def danaa la dis oon gedd la sa xaj suma doom ji mag di nekk góor jigéen wala di nekk di jaay taay wala di cagat wala def ji koy xaj ma lay ba fasaw yaa koy yëg te boo nga ne yaay ju la yow yaay doom ju baax ma yar la ni ma la yare nga xam xa dina gis lu baax gis lu bon nga cuus lu bon la ba pare ne danga ma xam lu bon mënoo koo xam ak lu baax cuusal ñaar yi benn xalaatuma koo matla sama doom xam nañ ma walla nañ dugg ci liñ warta dugg see xanaa bu ma dee fekk maa ngi dund duma ko matla lii moos anyway guys maa ngi dem <laughs> xendu leen jàmm ok <laughs> ba si kanam incha allah ok baay ñu bugg a dugg soo duma le mën a jël may dem so gars yi bi baaxut because you know but gis ngeen makeup bi mhm. so simple and cute baay ba beneen yoon baay beneen yoon gars yi allah baay